waaye li ñu koy wax def mooy jàngal ayaat door a ñëw ci jëm a firi ak jëm a tekki aoudu billahi min asheytaan rajim afaraayta alladi tawalla wa actaa qalilan wa akdaa aindahu cilmu lgaybi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi muusa wa ibrahima alladi waffa alla taziru waziratun wisra uxra wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaahu aljazaa al awfa wa anna ila rabbika almuntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amaata wa axyaa wa annahu xalaqa zawjayni dakara wal unthaa min nutfatin idaa tumnaa wa anna alayhi nash'ata al uxraa wa annahu huwa aghnaa wa aqnaa wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka aadan al ula wa thamuuda fa ma abqa wa qawma nuuhin min qabl innahum kaanuu hum adlama wa atqa wal mu'tafikata ahwa fa xashshaaha ma xashshaa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 tolloon ci borom bi ne am lam yu nab bi ma fi suhufi Muusa waaw ndax da ngeen a xamut da a yëgut la nekk ca téere yi Muusa ya ak téere yi Ibrahima ya téere yooyu dañoo tolloon ci di la na ca téere ya te mat fukki yëf ak ñaar fukki yëf ak ñaar yoo xam ne mu ngi ci téere Muusaa yaak Ibrahima ya fukki yëf yooyu ak ñaar doon nañ ko lim maag yéen di ko benn bennal la na ca téere Muusaa yaak téere Ibrahima ya li muy tekki it mooy démb lislaam mooy tey lislaam mooy ëllëgu lislaam lislaam amul période boo xam ne bii lii la benn période ba leela benn période bi la démb lislaam ak tey lislaam ak ëllëg lislaam lenn leer moo tax ca suufi Muusa nga yëg ba ca fi Ibrahima lépp lenn leer jokkaloo googu moo am ci al islaam moo tax moom tabaarkalla kon loolu mooy euh, taxawaay bi loolu mooy melokaan yu noonu la lislaam mel ñu nekkoon nag ci loolu nekkoon ci suufi Ibrahima ak Moussa ñu gisoon ca la ca jiitu mooy bàkkaar du war loosu jàmbur bakkaaru nit du war loosu jàmbur maanaam àdduna ay du yem ci boppu boroom alaaxira ay du weesu bopp boroom waaw àdduna li fi yem mooy ay du yem ci boppu boroom alaaxira la fa xew mooy ay du weesu bopp boroom ñaaral ba ci la nekk ca téere Muusa yaak Ibrahim mooy doomu aadama du añeel lum toggut wa an laysa lil insaani illa ma saa doomu aadama du añeel lum toggut hmm? loolu nekk na ca téere ba ku ci na bàyyi xel ci say jëf yàlla du ko jaawale du ko jox keneen waaye it kenn du tibb ci jëfi nit jox la say point moom say point la rek boo ko laajee enseignant yi xam nañ ci dara ak professeurs yi ay noot moom say noot la rek donte sax xëy na euh, mu ngi noonu waaye daal loolu mooy li am nit du añee euh, añ bu mu toggut tabarkàlla yowmal xiyaam ñaareel ba wala boog ba ca tege mooy wa anna sa'yahu sawfa yara bu ko mooy liggéeyam dana ko gis sawfa yuraa des na danañ ko gis buñ ko gisee fay ko fay gu mat sëkk borom bi tabaaraka wa ku jëf dana la fay la fay la jëfoon fay gu sëkk yàlla du wax kenn la kees du dencal kenn jëfam ba garab de fin di ci am wa anna sa'yahu sawfa yura waaw danañ ca dana danañ ca teg bët daañ ko ko fay yàlla du desal kenn dara du wax kenn xaaral bala quinze du tegle ay weer yu mu fayut ku ko def ku nekk def nga lu jaaduwut ëllëg nga lay xaar yonent bi nee na alayhi salaatu salaam kuy liggéeyloo nit balaa ñaq waa fendi na ko fay balaa ñaq waa fend na nga ko fay la vingt cinq na solde yi dugg ci nit ñi balaa la cinq fekk solde yëpp nit jot nañ ci loolu mooy li jaadu ci nit waaye tegale ay weer fayoo ko loola mën na koo jural këram tas te tas kër kenn mënu koo layal yowmal am nit ku tas kër ak jàmbur yoreel nit ab soldu mu arrière ba jabaram takki bagaasam bitig ba toŋal ko location ba toŋal ko bàkkaar gënu ko rëy ndax loolu day jëm ci tas kër te dañ koo ameel lim liggéey ko ameel sax léeg-léeg yàlla xam na ne ñàkku ko ñàkku ko de waaye fit wu dëgg rek bëgg lekk ak jaambur moo ko ci dugal wa anna sa'yahu sawfa yura borom bi nee na ku jëf dina gis la nga jëf te dana la ko fay fay gu mat sëkk dara du ci wàññeeku loolu la suñ borom wax waaw dara du ci sikk moo tax su boobaa tayal dootul am ci pénc liggéey sawar mooy am ku mu wóor ne boo liggéeyee ba noppi ñu fay la tayal dootul am ku mu wóor ne liggéey góor-góor lu taxut nga fayu euh, cawarte dootul am cawarte dootul am moo tax fi mu nekk nii ñi ñi ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey di góor-góorlu te ñu leen def noonu tayal di daal tàmbalee ñëw ñi nga xam ne ku politique am xaalis ku ku ku fo am xaalis poma daal di tàmbalee ubbeeku tey fi ne wutum xaalis mi nekk ci ni mi nekk ci réseaux sociaux yi jaaxal ñu baree baree baree bari ndax ay vie rek la ñuy xool bu vie yi baree nga am xaalis bu vie yi doo am léegi nag pour vie bari boo waxee njaaxum am vie yu baree baree bari waaw boo waxee toj-toj am vie yu baree baree bari vie ya mën nga cee am leen saa yi lu ëpp solde li gars di am ci vie yooyu waaw tabaarakallah léegi nag borom bi tabaaraka taala dafa bëgg képp ku jëf nga fayu moom day ñi koy jëfal ñépp ay fayu wa anna saayahu sawfa yura wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura loolu ci système bi bu bu bu demee noonu rek système bu tëdd noonu rek léegi tey penc mi ñépp sawar ñépp sawar ku liggéey gis sa sa résultat wu liggéey waaye liggéey ba noppi gisoo sa résultat wu liggéey waaw nee bu bu liggéey yem ak yaafus jàmbar jàmbaar dootu gaawut ñu ñu fay ko ko nag aljasa al awfa yàlla du deseel kenn dara yàlla du deseel kenn dara léppay mat léppay mat loolu nag mooy jur cawarte ci penc mi ñépp sa war a liggéey mbokk yi maa ngi ci surat najm aaya 33 waaw mbokk yi sunu borom teg ca nag wa anna ila rabbikal muntaha waaw dox bi nga séen kenn koo séen muy dox wa na ila rabbikal muntaha ah fala tariqa ila tariq allazi yantahi ilay koo séen bébé boo séen waxambaane woo séen jànq bo séen jeeg boo séen njegemaar bo séen ustaas boo seen ilimaan joo séen wa anna ila rabbika al ñépp am nañ point final boo xam ne ku ca àgg allahu akbar ku ca malaaka mi ñëw ne la yow sa wàll ci àdduna jeex na nooy def mu ne xanaa nga ñëw tëddi fooy tëdd ci barab bu ñuy wax xabru ñoo fay tëddal ña nga bokk tëddal ca xubóor ya hmm? waaw waaw jamono ñëw na nooxun dund dund dund ba dund junni at yu manqué dem tëddi ibrahima jaar fi dund dund ay at yu yàgg dem tëddi noonu la ñuy def alayhi salaatu jaar fi soxnaam ya jaar fi doomam yi jaar fi asahabatul kiram jaar fi taabiuun yi jaar fi ah asalafu saalih jaar fi ñépp dem tëddi sëriñ su mag a mag ci sëriñ si ña nga dem tëddi maa la ko wax ña dem tëddi léeg-léeg nga ànd nga ànd ak moom dem denc ko ñëw toog waaw dem denc ko ñëw toog eh, fat si dem mii barki dem boo mbaay la jóge ci groupe bi dem tëddi waaw groupe bi ki ko jiitu woon di euh, Babacar Touré dem tëddi aa waaw waaw wa anna ila rabbika al foofu la ñépp jëm rihlatun ila daaril axira loolu bu leeree ci bopp yi ñéppay wàcc bu leerul nag dañuy tuñ tuñ rek kenn du wàcc te boo waajut mu bett la te kum bett hmm, waaw laa malja min dunihi wala mawaa ila eh, ila kenn mënu ci dara fii jahim aw fii naim foofu la nit jëm benn nga tëdd ci xabru ba tëdd faa ki xéewal waaw wala nga tëdd fa tëdd faa ki duma waaway nit dana tëdd ci xabroom ñu climatisel ko xabru ba branchel ko wàllam ci aljana muy tëdd di nelaw rek ndeysaan ba jóg jot nit dugg ci xabroom e, ñu ñu ñu ñu ñu ñu pooseel ko wàllam ca fam jëm fu baaxut fa waaw xabru bi tàng rek waaw te foofa du am clim du am vantaay ndeysaan ndoxum sedd du fa am Euh, njarum sharik du fa am mbokk yi loolu bu amee yëg-yëg yom yee ci nit defarum ci yomb ko defaroog waa penc mi yomb ko waaw yooyu daa mën a defar ci nit yu am solo wa anna ila rabbikal muntaha nisan cëy waaw te loolu Ahmed Dansokho yàlla na ko yàlla yokk yërmande moo daan wax ne bu démocratie amee ñu naa mu ne dee mooy démocratie ko ha mu ne moom démocratie la ndax ku jeexal ci àdduna booy bébé booy paa yaa ci mbokk yam wala nga di meer dem rek dem tëddi ñéppay dem tëddi hmm? wa anna ila rabbikal muntaha loola ma nga ci téere téere yu Muusaa ya ak Ibrahima am lam yunabba bi ma fi suhufi Muusaa wa Ibrahima alladi waffa mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekkin ak seen njaboot boroom ba teg ca lu ama am solo te yéeme lool te mooy wa annahu huwa moom képp wa annahu huwa moom mu daj ci huwa waaw ñaari yëf wa annahu ba noppi ne huwa moom képp lu lay tekki moom képp kott dong kese adhaka moo reeloo ñaree moo reeloo karee wa abka moo jooyloo ka jooy <laughs> allahu akbar adhaka moo reeloo karee wa abka moo jooyloo ka jooy adhaka moo jooyloo ña moo reeloo ñaree wa abka moo jooyloo ña jooy mbokk yi ree ak jooy tubaab bi waneegul ay siditam ci ci yaramu nit dañuy wane ay sidit sidit sàngam lii lay dox sidit sàngam lii lay dox sidit sàngam deret sàngamoo cay jaar deret far sàngam lay jóge machine sàngam ci yaramu nit moo koy liggéey waaw Euh, am saw barab sàngam lay jóge barab sàngam lay jaar waaw ab gis-gis barab sàngam lay jóge barab sàngam lay jaar waaw noyyi barab sàngam lay jóge barab sàngam lay jaar yooyu yëpp tubaab baa ciy liggéey waaw ndox mi tax a am doom barab sàngam lay jóge barab sàngam lay jaar bu dee ci jigéen noonu waaye gis nga ñaari baat yii ree ak jooy man day xam naa njàng mi soriwut waaye yërëguma fu ñu wax ne ree barab sàngam lay jóge njàng mi barab sàngam lay jóge moo tax léeg-léeg nit di ree ree ya nit di ca jooy léeg-léeg nit di jooy jooy ya nit di ca ree munu ci dara munu ci dara fi ne seetaan théâtre chinois ba xàqataay ku déggul chinois mënu ko <laughs> seetaan théâtre chinois ba xàqataay ku déggul chinois mënu ko waaw ku déggul chinois mënu ko mbokk yi lu am solo ngi nii waaw yàlla dëxëñ ko ci nit waaw dëxëñ na ko ci nit nit di ree nit di jooy waaw adhaka wa abka xaasiya boobu mu def ci nit muy xaasiyatu ad dihk ak xaasiyatul buka ñaar yépp am njëriñ ree dafa am njëriñ reetaana xaraam ree nag lu am njëriñ la moo tax yàlla def ko ci nit reetaan nag daa xaraam penc mi nag léeg-léeg xàmmeewu ñu reetaan ak ree am na ci ñoñ nogay boo nekkoon luy ree ak luy reetaan mën na la koo ñàkk mën a tàqaleel waaw reetaan ak ree reetaan mooy suxuriya mooy sabooti nit waaw mooy sabooti nit même boo boo tex-texiwut yaa ngi koy saboote loolu mooy reetaan laa yasxar xawmun min xawm waaw suñu borom da koo teri ci alxuraan dafa xaraam ree nag dafa dagan ree daf moom dafa dagan ndax day faj muñ dafa dagan ndax day faj kanam gu féex dafa dagan ndax day faj waaye nit kuy naan këj rek yooyu baaxut loolu moom day day day taxa feebar boo gisee sunu pénc mi léegi yu baree bari amatu fi reexa fi bëreetut waaw kaf bëreetut wane sa mbégte bëreetut këj rek gis nga sunu émission bi ñuy def tuddee ko alkitab ci yoor yoor maag sëñ Mbàkke ak Oustaz Aline euh, émission boobu ci ñi ko seetlu médicament la li li li ñàkk ci pénc mi ñun lañ bëgg indi ci émission boobu moo tax ki ki xamul médicament ree bu de bu reexee rek mu déranger ko lu am solo la lu am solo la ree dafa am solo lool su ëppee nag yàqu waaw ah, bu ëppee yàq su yemee nag baax waaye su ëppee nag yàq équilibre boobu nag moom lañ ci war a bàyyi xel mooy bu mu ëpp adduna noonu la ko yàlla mooñee bu mu ëpp nag bu ëppee rek yàqu waaw <laughs> wallaay ndeysaan ree baax na de de leen ree nag waaw waxoon naa ko ca tey ba njaay mu ne moo sekk dee leen ree tabarkalla ree baax na lool ci suñu xam Ahmad Tidiane si eh, am na mbokk mu dajale ay waxtaanam tuddee ko tabassumaat laay wax na dëgg léeg-léeg mu wax dara ndeysaan ñépp bëgg daal di ree te kenn du reetaan mbokk yi ree ak jooy ci mbóot yi yàlla mooñ ci nit la bokk waaye kenn xamul ñoom ñaar ree ak jooy fu ñu nëbbutu ak kañ ngay ree ak kañ ngay ñàkk loolu sunu borom lim def ci nit tem kem tem yéeme loolu ci la bokk hmm? waaw ndax léeg-léeg nit jooy ci am mbir ree ca mbir ma léeg-léeg nit ree ci am mbir jooy ca mbir ma hmm? waaw waaw léeg gis mbooloo mu ànd di jooy ak mbooloo mu ànd di ree xam ngeen ne ñi am dëj bokkut ak ñi am ngénte bokkuñu ñi am céet déedéet bokkuñu de kenn ku ci nekk ñee ngay jooy ñee ngay ree waaw nit ci bu faatoo bu faatoo faatu googu am na ñuy jooy waaye am na ñuy ree hmm? waaw waaw ndax ki accident te des ci accident ba yàlla na ko yàlla yërëm waaw oto ba ko fa jëlee bu fayoo xaalis ree la gën a jege ci jooy morgo bañ ko fanaanal bu fayoo xaalis ree lañ gën a jege ci jooy noonu ko ko toppi ba ka jaay saabu bañ koy sange topp ba ka jaay perkaal ba bu fekkee soqi ko wutoon mu soqi ko ree la gën a jege ci jooy te cib dëj lañ nekk ka jaar ca dëj ba teg ay bagaasam dank ca ceeb ba ree la gën a jege ci jooy loolu sunu borom a ko def jalla jalaalu azza kamal yu baree baree bari nga xam ne ree nga gën a jege ci jooy wala jooy nga gën a jege ci ree yàlla nëbb nag ree fi ko nëbb nëbb jooy fi mu ko nëbb ku ci jot rek daal di génn waaw tabaarkàlla nee nañu nit mën naa ree ci dara tey ci ëllëg sa mu jooy ca loolee nit mën naa jooy ci dara tey ci ëllëg sa mu ree ca loolee waaw eh, démb wala boog ci fan yi fële ca Côte d'Ivoire dafa caa am équipe boo xam ne dafa génn woon xelam ci Coupe d'Afrique bi gone ya mer tasaare yu bare bare bare bare bi gaa yi demee bañ gis ne amaat na sans su duggaat ñoo doon wër di toj ñoo wër di sar xolle kenn loo kenn amul lu muy niru waaw muy Côte d'Ivoire demoon na ba pénc ma ñàkk yaakaar ci ñoom ñoom it ñu def lañ daan def ndeysaan <laughs> entraîneur tubaab <laughs> ngay ngay calculer ndeysaan bu diw gañee diw waaw bu diw gañee diw noonu nag Aliou Cissé jàppale nañu ci ba loolu gëj naa am calcul yooyu wax dëgg yàlla gëj nañ koo def waaw ak ñoom ma yàlla sàmm leen waaw gëj koo def waaw bu diw gañee diw kon ñun daañ génn toog nag di xaar waaye soofu sunu borom adhaka wa abka wala abka wa adhaka waaw nga yëpp mer toj te lu ñu toj ko waaw ñu jékki-jékki ne ah génnaat ngeen waaw troisième bu dëgër ngeen ah ña doon toj ak a def yëf génn ca mbedd may jibile jalla jalaalu adrakama lépp nag sunu borom mi ngi ci hmm? kon adhaka wa abka te loolu fi ko sunu borom denc moom rekk a ko fa mën a denc ku dul moom mënu ko faa denc jalla jalaalu azza kamaalu ku dul moom munta denc loolu ci doomu aadama bu ree bu ree jotee mu ree bu bu bu bu jooy ñoree mu jooy mbokk yi borom bi ci suufu fi Muusa wa ibrahima allasi waffa daf caa waxaat wa annahu huwa moom képp moom képp kott dong amaata wa ahya daa akbar amaata wa ahya mbokk yi alxayaatu wal mawtit nun la xaw a mel wala almawtu wal xayaa nun la xaw a mel waaw ànd ak nit ba mu yàgg nga yóbbu ko hôpital docteur bi woola ne la faatu na ki nga tiimoon muy wax ak yow tey munta wax ak yow li ñu dind ci moom ba tax mu ne laaj ci mënatul wax mu tëdd nii te nekku fi loolu yàlla rekk ko man yàlla rekk ko mën mu ngi nii tëdd nga ñëw mu naan la na nga def mbaa yaa ngi am jàmm na ngeen dollee góorgóorlu nga génn ñëw fekk ko mu ne selaw li ñu dindi ci moom la nit munta gis waaw sunu magum daara ma imaam Malik Njaay cët Cees amir jamaatul ibaadu rahmaan masoon na koo nekk ba mu ca tollee ña nekkoon di taxaw mu ne nit ko wutal ma ngegenaay ndax ngegenaay sunna la ñu dal ko ngegenaay mu geganu mu ne ko demal wutali ma nangam mu dem wuti loola bi mu ñëwee fekk na mu noppalu ah waaw waaw lii loolu mooy nit ki nga tiim di wax ak moom bu ruu dañee du wax ak yow du wax ak yow loolu nag sunu borom rekk nee na moom dong koy def am lu mu def ci nit ñu tudde ko ruux waaw bu ñu ko dindee rek te ruux moomu ñuy dind nag gone yeeg mag ñeeg góor ñeeg jigéen ñeeg ñëpp ñëpp ñëpp sunu borom amaata wa ahya waaw ñi dund mooma ñi fi jóge mooma waaw te it ni dee di ñëwee ci nit léeg-léeg nit feebar def ko waaye li léeg nit wér cëng def ko léeg-léeg nit yóbbu nit hôpital ñu ñu faj ko téye la yow mi ko yóbbu téye la yow mi ko yóbbu waaw amaata wa ahya yii muy wax yépp ci suufi ibrahima ak yi muusa ak ibrahima lu ci nekk mbokk yi day conscientiser nit day yeexaat ay yëg-yëgam yii day yeex ay yëg-yëgi nit ba ay yëg-yëgam wuuteeg yim doon yëg lu jiitu muy jàng lii walla lu jiitu mu yëg lii waaw borom bi di benn bennal yooyu di leen ñaar-ñaar amaata wa ahya amaata wa ahya ansha al mawta wal wax na ko ci aw saar si xalaqal mawta wal xaya li yabluwakum ayyukum ahsanu amala waaw cëy mbokk yi àdduna si yàlla indi nu fi ñuy dund muy jël di jël par kenn léeg-léeg mu jël mbooloo léeg-léeg nga dégg accident sàngam nangam nit faatu nañ ca waaw bu dee sunu réew mi lim yi léeg-léeg mu takku fukk ak ñeent ñaar fukk fanweer rek tabarkàlla ndax oto yi màggat nañ dawalkat yi tële nañ waaw Euh, kilifa yi ji yi yor loolu ti ñoom tam seetaan nañ oto yi màggat nañ mbokk yi oto yu màggata màggata màggat ñooy daw ci réew mi boroom oto bu màggat bi am na pexey am oto bu gën a bees bi mu am euh, pénc mi ni ko oto boobu nga ne am mën nga ko am nag doo ko am mu yor oto bi mu yor fii rek di habillé ka càkk-càkkal oto bi màggat 1968 ba léegi waaw màggataayu oto yi tax léeg-léeg ñu ne dañuy dañuy wuutal park bi dindi fi oto yu màggat yi waaye liñ koy wax ak bari waaye ba léegi oto yaa ngi màggat te oto bu màggat ba nekk di def transport bu dalee ci beneen oto sées dajj ko gi sées yi dajj ko ak oto gi ñor gim ñor mën naa tax ñu bare bare bari des ci waaw waaye ñépp a ngi ciy wax ba tey rek mu ne kàkk oto bu am at sàngam du fi ñëw waaw te oto bu am at sàngam moom na fi daw contradiction boobu la ñu nekk ci pénc bi sunu borom amaata wa ahya waaw amaata wa ahya looy dawal it ginnaaw léegi kum neex am permis ak kum neex dawal kum neex am permi kum neex dawal waaw kum neex rek am permis kum neex dawal te nun sunum réew nit ñi xàmmewuñ oto oto bu taxaw ak noo mën a mel ñu yéeg waaye du ma yéeg ci oto bii déedéet nu mën a mel ñu yéeg waaw euh, gàmm ak Tiwaawan dafa jot jenn waay ca pompier fee mu nekkoon di dugal nit ñi ci oto boo xam ne juróomi at a ngi nii jógul fi mu taxaw waaw mu dugal ci nit ñi bañ fees del mu encaissé la nettir ñépp toog nag di xaar te oto bi ñu dugg ñeenti at ba juróomi at a ngi nii oto bi jógul fi mu taxaw ala kulli xaal sunu borom amaata wa ahya mooy rey mooy dundal mooy dekkal bu ëllëgee waaw mu nëbb yooyu nag ci nit ñi ki faatu dib néew tëdd lan moo jóg ci moom loxo ya dee fa bët ya dee fa nopp yaag tànk ya dee fa biir ba dee fa lim soloon sax moom la sol tëdd nii nag waaye nag mi ngi nii tëdd waaye nekku fi mi ngi nii tëdd waaye nekku fi ah waaw waaw tabarkàlla mu ngi nii tëdd de waaye nekku fi amaata wa ahya euh, mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot maa ngi suurat najm aaya 33 ak la ca mu tegaat ci leneen lu am solo ci biir pénc bi wa annahu xalaqa zawjayni moo bind ñaari xeet ad dakar wal untha góor ak jigéen yàlla nee maa bind ñaari xeet xeet wu góor ak xeet wu jigéen yàlla bind góor moo bind jigéen ñu nekk ñaari xeet zawjay ni ha min nutfatin ñoom ñaar ñoo bokk benn matière bu leen bind ñoom ñaar ñoo bokk benn matière bu leen bind loolu day yombut al imam shafii donga ba def nekkoon imaam yow de dangaa yëg yàlla lool danga koo xam lool dang koo ragal lool danga koo wéetal lool danga koo mën a sonnal lool imaam Shaafi di ko déglu rek mu ne ko yow lu la xamal yàlla ak lu la ko yëgal yëg-yëg yi nga ko yëg ak lu tax nga ragalee ku nii mu ne ko ah, doom man day saakom ngooña ma xamal yàlla mu ne ko looy wax ni mu ne ko maa la ko wax saakoom ngooñ de moo ma xamal yàlla waaw di doy mu ne ko maa la ko wax lu xew mu ne ko saakoom ngooñ bu ko euh, nag wi lekkee bu ko génnee xet gi xaw noo rey mu ne dëgg la de mu ne ko bu kéwél gi lekkee bu ko génnee xet ga neex lool ndax bu ko nag wi lekkee bu génnee day xasaw bu ko kéwél gi lekkee bu génnee day xeeñ xeeñ neex comme parfum mu ne ko waaw mu ne ko ñooñu ñooy lekk yooyu bu ko bu ko bu ko yemb lekkee bu ko génnee ñu ñu ndékkee ko ci nag wi bu ko lekkee bu génnee day xasaw kéwal gi bu ko lekkee bu génnee day xeeñ eh, yamb wi bu ko lekkee bu génnee day neex mu ne ko ñett yépp ci benn matière bi la jógee loolu moo ma yëgal li ma yëg waaye mbokk yi déglool suñu borom wa annahu xalaqa zawjayni fii nag jarul huwa professeur Djibi fii jarul huwa déedéet ndax li muy def nii kenn du ko ci jéem a fekk waaw ne wa annahu huwa nangam wa annahu huwa nangam fii moom jarul huwa wa annahu xalaqa zawjayni rek direct moo bind ñaari xeet yi kan ak kan ak dakar góor wal unfa ak jigéen fi mu leen bind min nutfa ci toq maniyu ah ida tumna <laughs> waaw charte ngoog nag ida tumna suñ ko suñ ko de tegee fam war a tegee ida tumna ida tumna mooy lan mooy couple bi ku góor ki wér na ku jigéen ki wér na boo ko joxee ay loolu mooy ida tumna bu ko góor ki wérut isaa tum naa du mën a nekk bu ko jigéen ki wérut isaa naa du mën a nekk léeg-léegi nag ñoom ñaar docteur bi ne kii dara jotu la daal ne kii dara jotu la te isaa tum naa mënta am léeg-léeg xeeti jinne yi nag def ko léeg-léeg xeeti jinne yi wala njabar def ko waaw Cheikh Abdoul Hamdi Diouf mu ñu ko daan jàngal waaw rahimahullah wa radi anhu min nutfatin isaatum tumna mbokk yi loolu tam bokk ci li jaaxal nit ñi jaaxal nit lool hmm? waaw waaw xëy na ñi ngi ciy jàng ay yëf di ko wane ngay xool départ baak arrivé ba waaw fam nekk ak diir bam fa nekk loolu lu am am solo la mooy li gën a yéeme ci kaw suuf waaw min nutfatin isaa tumna mooy suñu ko tuuree fañ ko war a tuur di ay yëf yoo xam ne ci lekkug nit lay jóge jóge ci lekkug nit euh, soppiku deret jóge ci deret soppikum ndox mu weex te ratax ni nit di ñaqe ni nit di tuurey rongañ ni nit di ñandeekoo xeeti ndox yooyu yépp nekk ci nit yàlla tànn ci mennum ndox moo xam ni isaa tum naa mu nekk nit waaw nit kooku mel ni nit kii moo tax foofu tam bu bu bu leeree ci nun ku fonkoon waajur yokk ko waaye bu leeroo ci nun ku yërëm doom yokku ko waaye loolu bu leeree li muy yee ci sunuy yëg-yëg dana tax waajur yépp fonkaat seen doom yi dana tax doom yëpp fonkaat seen waajur yi waaye bu leerul bu leerul waajur du yërëm doom te waajur wu ñàkk yërmande ci doom day tax doom moom tam du yërëm waajur nogay fi ne bu doom ju góor ji liggéeyee ba weer dee lum jox nogay nogay xeeb na ko te kat xam lu muy am te nogoy doyoo ko dara nag fi ne la waroon nekk mooy ñu togg jox ko mu lekk ne neex na bari na waaw génneem yërim ñu fóotal ko baleel ko néegam fobeeral ko ko nogoy loolu la waroon taxawe déedéet ku góor ki saa bu ñëwee indiwoo dara xam naa man yërëm naa Cheikh Baba <laughs> yërëm naa ko lool ku nogoy di sa yaay seet mbokk yi wa annahu xalaqa zawjayni adakara wal untha min nutfatin isa tumna hmm? waaw loola jóge ci góor ñu denc ko ci jigéen benn diir boo xam ne bi li ëpp ci nit ñi xaw nañ koo xam waaye yàlla ne ca liggéey boobee góor ga alxaj ibrahima saaxo jàngalekat ba mu ne sunu borom matière boobu la jël ne ci benn atelier bu lëndëm bu ñu wax biiru jigéen nee na bu nit ki ñëwee dana indaale ay bën-bën te doo dégg kokk-kokk pour pour pour pour bënn dara nee na bu ñëwee dana indi ay yax yu tàpp ndaar te doo dégg xoosu xoosu dana indi yax yu gàtt ak yu gudd waaw yooyu yëpp doomu aadama bi indi ko waaw ndox moomu soppeeku di soppeeku par quarante jours ba bis ndox mi ñëw àdduna waaw bébé ñëw fi di xool ni ñëpp yor cëri ñëpp waaw ñu toog ba mu yàgg rek bébé muñ ñu ne ah <laughs> waaw ndeysaan ñu toog mu yàgg bébé di ree ni ñëpp dàq jooy ci kër gi waaw mbokk yi loolooy lan loolooy lan loolu mooy al insaan ah insaan moomu góor jigéen naka naka lay deme borom bi rekk a ko xam en tout cas départ bi moom benn la danañ doxal lu yàgg médecin yi door a xam góor la am jigéen waaye guddi gi mu fanaanee ci biiru yaayam kenn xamul lu mu doon mbokk yi kii def loolu cër bu ñu ko jox yayoon na bu ko ëpp ragal gu ñu ko ragal yayoon lu ëpp yaakaar gu ñu ko yaakaar it ragal na euh, euh, war nañ ko yaakaar lu ko ëpp ah waaw waaw benn matière ma defar ci góor defar ci jigéen isa tum naa isaa tum naa ji kon su boobaa wérat yi jigéen na jaral jëkkëram ñu ànd dem ca institut pasteur <laughs> fekk fa ñoom xujj waaye na jaral ku góor ki moom it mu def ay analyse sunu penc nag aada dafa defe ne ku amul doom yow ku jigéen ki ci yow la say bokk ne sa jëkkër takkalub ñaareel mu takk mu nga far gën a weeru waaw léeg-léeg góor ñaare du dem di defi analyse waaw ci ay wàjjile ah kay war nañ koy def de ndax isaatum naa ji isaatum naa ji waaw moo tax bu ci jigéen tollee nañ ko bàyyi mu ëmb isaatum naa ndax bu ca tollee bu ko weesoo isaatum naa su amatee ëmb mën naa jafe ëmb yaa ngi jafe lool waaw opéré yaa ngi bari lool diw af daf am doom dañ ko césarienne dafa bari lool léegi ndax yéex gee sëy moo koy waral yéex gee dugg néegu sëy lu tax leen cay xaar ak mët a gut ak cëree mët a gut ak mariage précoce lu nañ wax ko ci rek isaatum naaja loolu moo koy tee ñëw mbokk yi sunu borom mi ngi nuy limal ya nekk ca téere yi ya ak ya nekk ca téere yi Ibrahima la si waffa ba toll ci wa annahu xalaqa zawjayni addakar wal untha min nutfatin iza tumna min nutfatin iza tumna tabarakallah mbokk yi yàlla jàmm yàlla nekk yéen ak seen njaboot yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër yàlla yàlla yokk sutura élection yaa ngi ñëw yàlla nañu fekk buy dem yàlla nañu fi bàyyi jégalu nañ soxna yi ñaanal sëriñi daara yi yaayi daara yi euh, dongay daara yi